ci seenug dund ndax mbir mi dañu sellaale ba ci bopp ak baat yéen kay gi di réew mi quotidien nee na fukk ak benn yi nga xam ne procureur nee na nañu leen tëj li des ci seenug dund ñooñu nag li ñu leen di toppee mooy lu jëm ci wàllum association de malfaiteurs maanaam lëngoo di def ay ñaawteef ak lu jëm ci wàllum assassinat yéen gi ne nag ki nga xam ne mooy César Atoute Badiane kookee na ab mandataire international loole la procureur bi sàkku ñu daal di koy lancé yéen kay gi di vrai journal xëy di ñu xibaar ñoo ngi dee maanaam courtier yi ak yi ñoo ngi tekk nga xam ne ñooy locataires yi jamono jooja nag état bu Sénégal dafa seetaan ñi nga xam ne ñooy locataires yi bailleurs yi ak courtier yi di def lu leen neex yéen kaay gi di Dakar Times daan nay xëy nag si jafe-jafe yi nga xam ne Sénégal am na ko te nag jafe-jafe yi li ko waral surnal bi ne na coronavirus bi bokk na cee ak guerre bi nga xam ne jamono ji moo am ca diwaanu Ukraine yéen kaay gi ne na en tout cas li am ba mooy bëri na ay njaboot yoo xam ne dañoo sonn ba maara détaillé ndax njëg yi nga xam ne moo yokk ci réew mi maanaam njëg yee bëri journal bi ne na li nga xam ne nag mooy jën jën jamono ji kenn mënutu ko lekk maanaam ceebu jën bu baax jee bu jën bu baax jafe na ci réew mi la ko waral nag mooy bokk na si nag maanaam jën ci boppam doom ju góor la ci réew mi moo tax ñi nga xamante ni nag ñooy nappkat yi ak ñi nga xam ne ñooy mareyeur yi jamono jii nag ñoom ñoo ngi yuuxu wàlloo yéen a kaay gi di Sud Quotidien xëy na ci njiit réew mi di président Macky Sall mi nga xam ne ni ki démb ci conseil des ministres daat nay wax ne pare na ngir nag lëngoo ak mairie bu Ndakaaru ak nag commune yi nga xam ne moo nekk ci département bu Dakar journal bi nee na Macky Sall bëgg naa jege yantoo ak Barthélémy Dias doomu Sampol a kaay gi di bés bi bi nee na Macky Sall kay maanaam na loxo Barthélémy Dias ngir nag liggéey ak mooma yéen kaay gi de Le Quotidien ak L'As xëy dañu xibaar naan ñu yi nga xam ne moom la ñu dëgmale Idrissa Seck kaful réewul Idrissa na ndax nag lu toll ci fanweeri junne ci ay signature ci ay parrain la Idrissa Seck jébbal Macky Sall yéen kaay gi di Walf Fadjri xëy dañu xibaar naan ñu élection législative yi nga xam ne moom la ñu dëgmale maanaam Macky Sall élection yi jaral na ko lu ne dundu baa dee Macky Sall bakkanam la teg ci élection législative yi nga xam ne moom la ñu dëgmal kàddu Abdou Khadre Sanoko la di ab sociologue analyste politique ba tey ci journal bi moom Abdou Khadre Sanoko daat nay wax ne Macky Sall nag opposant yi nga xam ne ñoo gën a tar ci réew mi mooy lu jëm ci wàllum demande sociale gi Macky la ci ama ndax nag jamono ci mën nañoo wax ne maanaam dund gi métti na lool ci biir réew mii di Sénégal waaye tamit location bi cher na lool lii nag bu ko Macky Sall lijjantee mën naa gagné li nga xam ne mooy élection yi kàddu yi Abdou Khadre Sanoko la waaye nag Macky Sall su perte élection yi moom c'est fini julli tubaab Diop yéen a kaay gi délibération xëy dañu xibaar naan ñu ñi nga xam ne ñoo bokk PDS te nekk sa géej waaye ñoom nag nee nañu seen bëgg-bëgg mooy Karim da ñu delloo waat ko ay droit civique am ak ay droit politique mu ñëw ci réew mi daal di jongante comme ñëpp yéen a kaay gi de enquête xëy dañu xibaara naan ñu jigéen ñi nga xam ne seen borom kër yi dañoo tukki maanaam jigéen ñooñu nag ay jafe-jafe yu métte métte la ñuy daca ndax nag am nay moodu moodu yoo xam ne bu ñu tukkee danañu fa def lu toll ci fukki at yéen a kaay gi di réew mi ko tribunalum Dakar am na ñaari militaire yu ñu raje yoo xam ne doon nañu leen attee ñi nag dañu leen di joxari baaraamu tuuma ne dafa am benn banque bu nekk ci boo xam ne Samba bu yi dañu koo dajji ginnaaw nag bi ñu fa jëlee fetal teg ko ci ki nga xam ne moom la ñu fa fekkoon yéene kaay gi ne na kenn ki nee na nag dafa bëggoon a ngénte ñetteelu doomam moo tax mu def googale ñawte fa procureur démb nag ca tribunalum Dakaru nee na ñu tëj ko lu toll ci fukki at ak juróoma ñaar fukki fànn ci weeru avril wi nga xam ne moom la ñu dëgma la la ñu leen di wax lu leer yéene kaay gi de la tribunal nee na en tout cas am na loo xam ne nemmeeku nañ ko ci Sénégal mooy bëri na ay criminels yoo xam ne ñoo ngi leen di gracier waa kan moo leen di gracier journal bi nee na en tout cas anam bi nga xam ne daal moom la ñuy defee lii di grâce war nañu koo xool xoolaat ko yéen kaay gii di libération xëy ñu xibaar naan ñu nag enregistrement yu Mamour Diallo Adji Sarr ñi nga xam ne nag ñooy avocat yi Ousmane Sonko yi ñoo ngi ciy liggéeye waaye tamit ñoo ngi liggéeyaat ci beneen document écrit boo xam maanaam jege na lool ki nga xam ne mooy Mamour Diallo yéen kaay gii de la témoin xëy dañu xibaar naan ñu am na juróomi kat yu fekk baax mbuur yoo xam ne fekk nañu leen ñu ñàkk seen bakkan ci waaxu Cap Skirring yi yéene kaay gi du l'Observateur a nee na université Sine Saloum étudiant ya nga xam ne ñoo fu nekk jamono ji nag maanaam trox tàng la ñuy dund jahanama la ñuy dund ndax nag am na si étudiant yoo xam ne fa mairie bu Fatick nekkoon fa la ñuy defee cours maanaam moom la ñuy def seen amphithéâtral am na si tamit ay étudiants yoo xam ne ci ab discothèque fa la ñuy defee cours yéene kaay gi di estat xëy dañu xibaar naan ñu quart de finale aller Ligue des champions